1911 ba 2021 certes at yi mais li ñu focaliser wu tey bi ñu commencé ak léegi ci li focaliser wu mooy service yi nga xam ne amuñu woon 1911 te ñu ngi retrouver leen tey biir chambre de commerce mu nekk ay services yoo xam ne service yu bees la yuy permettre képp koo xam ne dafa yëngatu ci liggéeyal boppam wala muy wut liggéey wala muy def yenn activités yi mu mën a am lu ñuy wooyee accompagnement ku ko dimbali ku ko jàppale ba liggéeyam jëm ci kanam donc ci année bi ñu gis ne mën nañu jël comme thème ci rencontre anniversaire bi ñuy def muy li nga xam la chambre de commerce def ban impact la am ci biir économie régionale de Kaolack donc boko ko gisee tey mu nek ay centre yu ñu créé pour accompagner ay opérateurs bo gisee sank gis nañ lim bi nu tollu nous avons aussi centre de formation qui a créé nañ ko fi pour ku nekk biir Kaolack mën a jàngee Kaolack toog Kaolack mu nekk aussi muy centre de formalité centre euh, de formation professionnelle bi les Kaolack. Nous aussi ci mu nek lu de 1911 ba tay ji ñuy def anniversaire de 110 ans moy benn formation en électricité le plus souvent liñ koy gis bëriwul lu gis mooy assistanat lu gis mooy comptabilité ñu indi filière yu bees yoo xam ne ñi nga seen jàng soriwul trop ci école yi ñu am benn certificat professionnel bu leen di permettre ñu mën dugg ci yenn entreprise yi loolu tamit mu nekk ponk boo xam ne arrêté nañ ci tey ci cent dixième anniversaire bi juste pour xam chambre de commerce nekkatul chambre de commerce bi mu nekkoon 2010 disons wala 1911 maintenant en 2021 c'est de nouveaux services ay xarañte yu bees yoo xam ne indil nañ ko jeunes yi ak ndaw yi. tey ñu daje woon fii ci fête anniversaire u cent dixième année chambre de commerce bu Kaolack mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ évolution yu bëree baree baree bëri certes ci affaire port bi xëy na am na benn régression mais boo xoolee depuis 2010 ak tey am na beneen élan boo xam ne nii yàlla mun na nu may ñu dem ba aggat fii nga xam ne foofu la port bi déparé woon. di di féliciter suñu président parce que c'est lui kii est moom mooy définir politique bu chambre de commerce ku ne xam na ne def na ci ay jéego yoo xam ne da gëla ñun ñoo koy jàppale waaye jàppale bi ñu koy jàppale it nag kenn ci kanam yor menaceur général bi ak secteur général bi jëf nañ jëf yoo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan sa borom kattanal leen wéral leen te guddal seen fan kontaan nañ trop. ci wax deug yalla expo bi ndax suñ ko at ak à chaque fois damay wax la chambre de commerce moo mag commune de Kaolack tay japp na né ah commune bi mi ngi mais chambre bi mi ngi l'espoir de tous les Sénégalais l'espoir de toute la zone Imoa repose sur ce port-là dès l'instant où les organisations internationales ont déjà accepté de faire de Kaolack

te a une occasion une proposition qui est faite buñ ko les gens port animer parce que kuy xaar 500 conteneurs si ñu la bateau 100 conteneurs Si ñu am 100 conteneurs par semaine parce que 100 conteneurs au minimum un conteneur peut faire travailler 20 jeunes et si tu en as 100 cela veut dire que ne presque 1000 jeunes qui sont. ne dinañ j'ai encourager aussi vraiment l'administration de la chambre de commerce Si chambre chambre chambre chambre il y a les élus mais il y a le secrétariat général Nous avons piloté vraiment la vision du président je crois depuis 2010 nous avons fait d'une façon extraordinaire malgré que nous démarrer avec de piètres moyens mais nous faisons une référence de chambre de commerce. comme nous ko chambre de Commerce a créée en 1911. tey jii buñ ko xoolee mu ngi nekk ñi ngi ci ñi ngi ci tey 2021 mooy am na téeméeri at ak fukk pour wane rek ne économie Sénégal Kaolack def ci masa pesé wu tubaab yi ñoo ko yor ba 1980 sénégalais yi jël ko 80 ba léegi mais ñun liñ ci mën a constaté mooy gis nañ suñuy xool documents yi dañuy gis ne Kaolack nekkoon na dara Kaolack nekkoon na place pour xamné dafa wu Sénégal dafa imposé wu ci Afrique ay bateau de départ ak Bordeaux maison commerciale euh, euh, bari fi ñu gis 1970 ba day di di ba 2010 biñ ko ak équipe vice président mi secrétaire élu mi ngi euh, ak équipe bu technique bi gis nañ ne yëkkatiwaat nañ ko ba chambre bi nekk chambre boo xam ne nii moo raw ci Sénégal de loin sax en terme de résultat looloo tax man ma am place président de l'union sans amul sans concurrence te bu ngeen fàttalikoo président union des chambres de commerce bi ñu mujjee élire mooy tiraillement bu mari la woon entre su ñaari waajur yi nga xam ne yàlla na leen yàlla yërëm mooy président Idrissa Gueye ak Lamine mais ñun suñ bos sama élection amul benn problème euh, su amoon problème yéen da ngeen ko yëg journaliste yi ah léegi mu nekk loo xam ne nii ah àdduna bi kii africain yëpp dañuy ñëw xool ko parce que daaw xam ngeen ne janvier euh, président chambre de commerce yi ci Afrique yëpp dañoo ñëw fii def fi benn euh, kii benn benn benn assemblée générale ci lañ gis chambre bi léegi nag liñ ci gis mooy innovation yi bari na muy ah foire bi ngay gis parce que foire bi rek ci biir foire bi dafa amaat ay innovation yu bari ci biir foire bi ah chambre de commerce fexe na ba port Kaolack biñ fi ñëw ñaari bateau fi ñëw tey lu mat 150 bi nga ñëw mooy 300 mouvements mais ñun bu ñu état bi tout woon ko tuuti rek c'est sûr que danañ ko delloowaat fu ëpp fa mu nekkoon vers 1900 boo xam ni 1600 bateau ñoo fi doon ñëw te loolu kenn xamul lan euh, kenn kenn évaluer li muy régler ci économie bi en tout cas daal man maa ngi bëgg tey di féliciter opérateur économique yëpp ngeen wax ne Kaolack tardé woon na mais Kaolack jógaan na incha allah.